bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wassalaam ala ashraf al wal mursalin mbokk yi Matar dafa def benn publication mu ne ñu ngi dox jàmm parce que gisee nañoo ko euh, ñenn ci jege ñaali Oumar ñu ngi dox jàmm pour ñu libérer Oumar Sall mbokki Oumar Sall daal di weddi loolu à dem page commerciale officiel bi fi nga fa lañuy waccé ay loolu ne amul benn famille bi ku ñu contacter pour ay négociation Commercial, musul négocier ñu négocier légui nak Matar sa yow bi li yëpp yow bokk nga ci ñu ko jité ñu nekk ci da ngeen dem ba arrangé wu dangeen ngeen na ba xam ni échec ngeen ci gën a jëlee ko victoire parce que da ngeen a observé ngeen gis ni nit ñi dañ leen a jéppi surtout jeunes yi dañ gis ni quatre di pour cent sénégalais dañ leen dañ leen a jéppi dañ leen a mere léegi nag bëgg ngeen bàyyi affaire bu wadd mais faaw nag ngeen jéem am foo leen ko jaarale. parce que waa ahlul bidaa jéggalu daleen neex de ay diw kaay jéggalu loolu mooy seen arme bu gën a foor boo leen woowee ci xam-xam duñu wuyu si débat d'idées aayuñu ci teg ci seeni bidaa ci xam-xam aayuñu ci moo tax xool leen ñoom ñëpp képp ko da leen tontu ci xam-xam wala dafa dal seeni yoon waa ahlul bidaa seen arme bu gën a foor mooy vidéo la ne la jéggalul Omar Sall nee na négocier wul te yónnee wu ñu négocier lolu yaakar na leer na da ngeen dem ba xam ni fu mu ne nii affaire bi baaxul ci yéen parce que instant yi foo leen tourner gars yi ngeen ne mbindu seenub sëriñ di ko leeral mbootu seenub sëriñ mi ngi commencé leer te promesse bi nga xam ne ñun moom lañ leen digoon ñu ngi ci. waxoon naa leen fii ne naa leen mbir mi da ngeen ciy gën a dooleel Omar Sall te loolu moo am foo tourné ñi nga xam ne sax kenn kenn xamewu leen sunna peut-être ay activiste lañ walla leneen ak leneen ñoom ngay gis booy nekk ci huut bi ci underground bi ñooñu ngay ñooñu ngay gis ñuy défendre Omar Sall di leen daal affaire dafa metti ci yenn instant bi léegi nag ngeen bëgg a rafetal génn génn waay bi ngeen bëgg a rafetal. bu ko naay sal naan noo dem dañ négocier ak nangam ak nangam Matar Sarr vrai dafa yaa nga da ngay gëmoo ci dara yow boo sañoon Omar Sall ci kaso bi lay dee xam nañ mañeel bi nga am ci Omar Sall képp ku lay suivre xam na ko gëmoo dara ci li ngay wax. beneen bi mooy mbokk yi xam ngeen waa ji di Pape Sarr pour wàllu leen Sénégal ñu bari réew la nekk waa ji di Pape Sarr. ay jamono dafa jëloon ay photo photo Omar Sall ñeneen man mii ci laa bokk jël photo yi dem buntu oxygène taal photo yi di saagaw ndey boroomi photo yi caméra ko vidéo ko ba sax dafa saaga ba tuumaal am na ku mu ne kooku mathalan ci tiktok bi lay nekk koor gi yépp di saaga diw te kooku mag la am am na 60 ans xamul sax luy TikTok <laughs> benn Pape Sarr dafa tuumaal nit ñaar da koo saaga ñetti daa jël photom croix ko muy ñetti dëli jël photom tànk muy ñetti dëli yoo xam ne Pape da koo boole ñu porte plainte Pape Sarr wallaahi mujjul fenn sëriñ si dugg def te daxul ñu bàyyi Pape mbokk yi Umar Sall wax dëgg na yorente bi ginnaaw julli dajaloo allah allah allah musuñu ko def ñu jàpp ko teg ko ci kaso yi ne fra flagrant délit xaw ma bu ñu xamee ne boobu daa yóbbu ñu dem jëli benn wax boo xam ne Umar Sall nee na ñooy vingt ans ci ginnaaw la ko wax benn wax bu yàgg vingt ans ci ginnaaw nga xam ne jigéen judd na ci diggante bi ba sëy ci ba am jëkkër ba am doom sax amaana léegi wax boobu lañ dem jëli vingt ans ñu ne moo ko wax wax ji nag yàgg na bu fekkee moo wax wax jooju Oumar sàll njëkk ko wax wax jooju ay marocain ñoo ko wax ci Cheikh ay marocain bind ko ci ay téere te dinaa ko sulli ci laay fi dinaa indi ñan ñoo ko wax ma indi ko marocain yi nga xam ne ñoo wax loolu ci Cheikh ñoo dund ak Cheikh xam Cheikh ñoo wax ci moom loolu dinaa ko def ci live ma décortiquer ko ko benn par benn nànk par nànk mais lii doo la ci am ndam de wallahi doo la ci am ndam parce que xam ngeen ni temps yi ñëpp attaques yi seen seeni mbir seen i mbóot yi seen waa ji mbóotam yi muy gën a leer ngeen tiit bëgg a dellu ginnaaw mais incha allah ndam rek soobee yàlla Oumar day génn incha allah ci lu gën a gaaw bi iznillahi taala te day continuer lu daan def te du ci reculer barakallahu fiik xayaakumullah